ba pare ni 313 yi kese laa wax nañ génn ci biti wax ñoo bokk mission de waaye ñii mënuñoo affronter pank yi kon ku mënta affronter pank yi am nga wilaya mais amuloo walaaya mhm. mooy li ñuy tuddee autorité autorité mhm. waaw di nga gis nit ku nekk ci biir gis nga boo ñëwee ci kër boo laajtee borom kër gi mën na noo jàpp sa loxo ba ni la mooy diw ndax képp ko tabax kër takk soxna dugal ca di joxe dépense ba ak nu mu mënti mel yaay boroom kër ga waaye sangu kër gi kenn du la ko laaj kenn du la ko wax yaay toog ba xam ni diw mooy sangu kër gi mën na nekk taaw ba mën na nekk boroom kër gi mën na nekk même bon bi liggéey ci biir kër gi waaw loolu mooy mooy walaaya ndax yonent yi ni yàlla yàlla dafa am lu muy def mooy li ñu tudde wilaaya yàlla daf koy maye waaye du ko maye kon daf koy joxe moo tax bu ko joxee dana ko nangu mën na ko nanguwaat moo tax léeg-léeg nga dégg mag ñi euh, nit ñi naan par exemple biddiw bu fàq jëm penku ñu ni kilifa moo faatu kilifa diine bu fàqee jëm sow ñu ni kilifa aada moo faatu fekk loolu bu ko wax xaqiqa yi déggee ay ree da leen di jàpp parce que bu fàqee jëm penku dañu dégrader nitu yàlla ni ngay nekkee nit sa xarit nga jëy jekki-jekki mu def la lu tax nga xëy-xëy rompre xaritoo ga nekkatul sama xarit ak askano mënees su ko dagg waaye xaritoo mënees na koo dagg yàlla dina ko def ak nitu yàlla bis bu ñu dégrader nitu yàlla nag waa astrie ca kaw ñoo koy annoncé bu ko defee dañuy daw wuti penku waaye bu fekkente ne dañu wàcce buur parce que ñaar la mooy buur ak wila ak euh, yonent ak euh, waliyu wilaaye ci la yonent ak yooyu yëpp bokk mhm. ndax kullu wali kullu mursalin wali mhm. bu ko defee ki nga xamante ni nag mooy buur bu ñu ko dégradé mhm. bu biddiw bu fàqee sow la jëm waaye du kilifa gu gu ad adduna bu faatoog yooyu noonu lu ñu dégradé la moo tax bu loolu amee rek suñu borom day waat fala uqsimu bil xunnasi al jawaaril xunnasi bu ko defee mooy biddiw yi nga xamante ni ñooy topp loolu pour manque poussière bi pour que poussière bi bañ a wàcc pour que di gaañ nit ñi la cay rëcc kus néew moo ñuy def bouleversement de temps nit ñi di sojog lu mel noonu moo tax walaaya ak wilaaya euh, foofu la foofu mooy mooy farq bi lu lu lu lu am solo euh, moom nga wax xam nga dégraté euh, tooñ nitu yàlla wala dégraté nitu yàlla lu Seydi Hadj Malick boo demee ci faakihatu tulaab mi ngi moytandikoo sax nit ku yàlla jox cër rek nga attaqué ko surtout ci tarixa bi man kaana yudiim bilaxtiraami mhm. taradduhu zul jalaali wal ikraami mu ne an qurbihi saalibu ma aataau wa faqana bi ma yardaawu waaw kon loolu day kooku dalil la ci mhm. ah, léegi dafa am benn wax mhm. ba tey ñu ngi ci xut bi ah abal abbas yi c'est que dama dama parce bëgguma rek ñu mhm. tudd cheikh rek romb ko noonu te eh, ñiy déglu duñ xam dayoom parce que xam dayoom dafa am solo parce que waaw dafa am maxaama bu mu toogee boo xam ne Euh, kenn fekku ko ca waaw te dafa wax ne xaddamayya haataani uh, fawqa raqabati kulli awliya taala xam nga bu ca yemoon du du maanaam maxaaba ma sax yéeg na sax waaye bu ca yemoon sax day day gën mais li tax mu garaaw mooy min la dun aadama ilaa naf i fii suuf lan lan mën a déggee wax boobu xam nga ni nga ko mën a mooy li ma doon junj sànq ci aw ci euh, silkul ambiya ak silkul awliya mm-hmm. xam nga di nga dégg Sal Malik di wax ni من بعد ما آه، بما بعد ما قدمه الكردي رأى النبي المصطفى صفي وقال لا لا منة لمخلوق عليك من مشائق الطريق أنا مربيك وأنت, وأنت ولدي ولدي وشيخك الأبر كل مسندي أنت ولدي ولا بغنك كومبراندر أجا خمغا انت ولدي شيخ نكا naka la ko yonent bi naan yaay sama doom 24 مام dox nañ te bu doon ci sharia sax yonent bi cheikh mënul nekk doomam parce que ci Fatima la jógee banu naa banu ab naa inaa ñi jàng miras xam nañ ko wa banu ab naa ina wa banu banaatina ab naa ur rijalil abaidi maanaam doom yi góor yi nga xamante ni sa doom bu góor moo leen jur say doom lan say sët lan moo tax ñuy amee sa sant waaye doom yi nga xamante ni si sa doom yu jigéen la jur sëti génee ni góor lan moo tax du ñu la doon la kon bu Cheikh jógee ci Fatima. mi nga mhm. xamante ni doom la ci yonent bi. doom bu jigéen waaw. Mhm. yonent bi wëlbatiku jàkkaarloog moom naan ko anta waladi. di mhm. lañu war a teg baaraam la xool. fan lay waxee fu walla di mooy silkul ambiya ñoo jur silkul awliya. loolu moo tax mu wax lépp lu jóge ci ñoom. bu defee euh, tour bi ba pare ci silkul ambiya awliya la war a jëm. Cheikh nag moo dox ci diggante bi pour jëri ko. parce que bu sotteekoo directement ci al jóge ci am ambiya uy dem ci awliya uy awliya uy yëpp dañuy ruy cheikh moo taxaw foofu li ngay gisee li ñuy tuddee transfo transformateur nga xamante ni parfois mooy euh, égaliser temps euh, kii bi euh, courant bi ba nga xamante ni télé bi mën na bañ a làkk loolu la cheikh nekk ci diggante ambiya uy ak awliya uy moo tax moom attan na ko mhm. mais moo koy jëri man ko sotti ci awliyaa uy bu ko defee awliyaa uy man koo jëriñoo mais bu dul woon loolu bu ñëwee directement ci ñoom ñoom ñëpp dañuy ruy waaw kon mhm. loolu mooy euh, doomoo gi nga xamante ni cheikh mhm. yonent bi doomoo na ko mhm. mooy silkul ambiya ñooy baayu silkul awliya looloo tax xaatimul ambiya di ahmad xaatimul awliya di ahmad di ahmad waaw génération doxul seen diggante motax boné cheikh boné yonenti bi cheikh ngay wax parce que génération donc kon kon law la rasoul la kana cheikhou tidiane cheikhou tidiane kon kon lolo xam loolu tax ma khutbi abul abbas bo pare ne ko yab na mahamadin mohammed wa daf ko askanale directement directement ci ci sayidna waxul xafid waxul sibt wax yooyu yëpp da ko fi bay ni ko yab na tabarakallah yab mohammedin fa ilayka yàpp na muhammadin naadaani chiamun tuhaqiqu jawharal insaani Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum tabaarakallaahu def ko ci turandoom di soppeem di léppam di seydna Cheikh Ahmad ba nekk ca Faas ca marok ndeysaan ci tëraayam bu rafet boobu ñu di ci waxtaan ak Seydi Aboubacar Dia bi nga xam ne njaboot la ndax waa waajuram bu góor nekkoon na imam ca zawiya Sidi Aboubacar si muy Serigne maam Ousmane Dia mu def nafxatul misk fi shar'i fa ilayka te bu ko defee jaadu nañu dalal ko ci majalisul ulama kon dégg ngeen waxtaan bu riche bi nga xam ne ñu ngi koy séq demee ko ci chara bi nga xam ne def na ko ci fa ilayka kon ngeen may nu tuuti ñu pause ñëwaat mottali émission bi